ñu ngi leen ñaan nga nga abonné wala ngaa seetaan vidéo bi te bës cloche bi bu dugalee vidéo nga mën di jot notification yi alamin wa sallallahu wa sallama ala alfaatihi alxaatimi sayidina muhammadin nasiri alhaadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim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 wa rahmatullahi wa di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow ci aj tey nekk ci suñu ñetteeli jotaay jotaay bi ñu koy jotaayoo ci njëriñ yu yi yàlla xadul aji xaj ji wala mu nar koo xadul aji xaj ku mu ci ñaari njëriñ yi le lii di njariñ yuñ ñu mën a teg loxo nga mën koo jëriñoo fii bala ngaa dee yii di ay njariñ yooy teg loxo ëllëg ci àllaaxira maamoon yu ma ca wax amoon yu ca des yama la ca waxoon bokkoon na ca yañ mën a teg loxo képp koo xam na yàlla may na la ngay aji dana la yobbo nga am xam fa ño dana la yobbo nga namante ko fa ak ño xamone lola dana jur ak jëflante ñaata dem aji makka ñew tuddé ay tuddante ay doom ñaata ñooy ño xam sen seen embossement ña ko jëlé fofa waxtaane ko fa ba ñëwee mu soti ñaata aji makka jëlé fa njëriñal sey muy sa jëkkër ngay jabaram ñaata ci ñew nga far duggu ci sen nik ba tak ci soxna mbaa nga ñew ñaan la jabaram ñaataa ca bàyyee koo jël seen alal di ca liggéeyante di ca di ca bokk di liggéey ñaata ca bàyyeekoo nit ki jox la ndimbal demal nga liggéeyi man caa am lii man ma am ca lii ñaataa ca bàyyeekoo nga nekkoon ko amul tànk te am xalaatab liggéey nit ki jox la puus la nga tàkk yooyay njariñ kenn xamut ni mu toll ñaata milliard la ca arabi Saoudite di ca bénéfice wu te ku defar Arabie Saoudite wala muy Makka ak dina ci waxin rek defal nga yonantu bi ku leen defal defal nga mbooleem doomu aadama yi bu njëboo sa ñàkk nekk jullit su ko defee kon yooyu yëpp lenn la woon ca njariñ ya ma waxoon la tamit ne congrès bi gën a mag jullit ñi rek am ko ñu ngi koy amee ci Makka ci place yu wuutee yi ca Madina yi ca Makka yi ca Minan yi ca Musdalifa yi ca Arafa waxoon naa la ko xaji ku ne gan yàlla nga ku am gan ci ñun teral ko ak loo nay nay yàlla nag nim lay teralee mooy jéggal say bàkkaar nim lay teralee mooy moom ci boppam tamit nangu say ñaan ci lépp loo xam ne ni ñaan nga ko ko ak yeneen njariñ yi bokk na ci moom aj ji loo xam ne làmboo na ko waxoon naa la ko li ñuy tuddee musaawaat foofa lay lay feeñee dëgg nag nga gis ko am ak ñàkk bokk luñ sol bokk lu ñuy wax bokk luñ comporté woo ki ki seef ak ki mu seefu bokku luñ sol bokku luñuy wax ak nañ koy waxante aja gëna gaaw ci dàq li ñuy tuddee maanaam euh, maanaam ak raciste gi ñuy wax li gëna a gaaw ci dàq ko ci waasoo yooyu yëpp aja ci gaaw ku xoo ku weex ak ku ñuul ñëpp bokk di wër kaaba gu ñuul gi bokk di yëkkatee ndoor ci la bayka laahuma la bayka yooyu di sànni ay xeer yooyu yëpp timit maanaam ñu bokk bokk di fóon aw xeer ndax aj daal ay mbiram xikma bi ci ne yàlla rek ko xam yàlla ma ca nekk xam ko moo tax léeg mu sant la ne la fóonal xeer nga fóon ko muy xajarul aswat nga dem a dem ba ci kanam mu ne la sànnil xeer nga sànni xeer muy jamratul ula aqba ak wusta nga dem a dem ba ci kanam mu ne la xeer nga for xeer fële ca mustalifa juróom-ñaar di sànni xeer ya yeneen ñetti fan ya nag soo foree xeer ya di ñaar fukki ya baax na nga sànnee ko kon foon nga xeer sànni nga xeer sànnee nga xeer nga dem a dem moment boo xam ne dafa ne la bul ray rab rab woo ray da nga ko fay bul ray bodom bul ray bukki bul ray lëkk ba moy juróom benn rab yi yonantu bi setti won nañ leen rey dinaa ci yegsi nga dem a dem ba ci kanam mu na mu na rayal gàtt maa la waxoon bu ray waaye rayal gàtt nga jënd gëlëm ñu loj wala nga jënd nak ñu rendi mbaa ñu loj wala nga jënd xar wala bëy ñu rendi ko te pourtant ba ngay commencé harmal dugg ci harmal ga la la waxoon la tere naa la rëbb bul ray benn gàtt nga dem a dem ba ne sama liggéey baa ngi pare mu ne la rayal gàtt kon xaj li ci ne daal ay xikam yu bare bëri la làmboo yii xam nañ ko yii xamuñu ko waaye yàlla rekk moo jagoo ñi di ko topp ci luñ xam ak luñ xamut bañ koo mooy ci liñ xam ak liñ xamut waaye bokk na ca njariñ ya benn dërëm boo fere ci aj yàlla dana la ko fulal juróom ñaari téeméeri dërëm benn tërëm boo fere ci aj moo xam danga nga koo defal nit ci mu xaj yi moo xam da nga koo def ñam ki xaj lekk ko moo xam da nga caa jënd mal mu sol ko moo xam yow may xaj yaa ko ca fere nu mën a fere daal yaa ko fere wala nga fere luhu ko benn dërëm bu nekk juróom-ñaari téeméer dafa dugg ci buntab infaq ji alquran ne won masalu lasina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka masali xabatin nambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba kon lola lu reey reey la tan wallahu yudaaifu liman yasha su ko defee kon li waral loola lépp li aj làmboo ci coonooy tukki làmboo ko ci sori say ñooñ làmboo ko ci dog bànneexab yaram làmboo ko ci dog bànneex a bakkan ab miliyoneer buy dem di tëdd ci tànta di tëdd ci matla di tëdd ci basan di làmbaayoo ko xodd booba tumuraanke gu rëy rëy la wan sa gannaaw say soxna ak say doom lim bu toll nii moo tax daal kenn du sayduna muhammad yonentu bi la yàlla may mu dem a dem ba sant nit ñi góor ngi ne xoddu leen ñu xoddu waaye dama ne ko bëggoon a sant góor ngi ñu xoddu ku dul yonent bi da nga xam ne xoddu yombut ci góor waaye moo ñëw fekk xol yi fees tepp ci wé ci bokkaale yàlla ñetti téeméeri xërëm ak juróom-benn fukk ak lu teg ñii seen bakkan di seen xërëm ñii seen xalal di seen xërëm ñii seen njaboot di seen xërëm ñii seen jabar di seen xërëm mu jël xiram yépp màbb ko ne saxal leen kenn kese te mooy ki sax mu yàlla dañ ko saxalee ne ko fii lañ mën a xem mënuñ cee dolli dara mu ne duma fi xem ak yéen dangeen ngeen julli nuy julli mu ne da ngeen kabaar wax allahu akbar yëg ne dara màggatut li ngeen doon màggal ba tax ngeen màbb ko wax leen ne màggut yàlla rek a màgg wax leen ko ci seen làmmiñ seen xol enregistré ko bu ngeen ca bàyyee jàngaleen luy firnde ne moo màgg muy fatiha ak saar bu ngeen ca bàyyee lu leen ba wane ne màggu leen ngeen rukkoo bu ngeen ca bàyyee ko ne leen ràpp ngeen su jóot toroxlul seen yàlla ci seen i jë ba ngeen yëg na yàlla rek a màgg ñu def ko ne ko fii lañ mën a xem mëntuñ cee tegati dara mu ne seen lu gi des na na ko seen biir yi yëg ngeen bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jotee seen bakkan bi yëg ko weeru lëm wala ñaar fukki fan ak juróom ñeent wala fanweer ñu ne ko def nañ ko foofu lañ mën a xem mënuñ cee tegati dara mu ne nag li ngeen am boole leen ko ngeen ànd ci ak ñi ko amut ndax muy tekki ne la ngeen jëlee ci koor gi dëgg la ñooñu mën caa fatt seen ab xiif mën caa fatt seen ngeen dimbale leen ci bu leen li leen dal dalati nga yëkkati sa alal bokk kook néew ju doole ne ko yonent fii lañ mën a xem mu ne tey ngeen xottu du ngeen cee xem da ngeen terax laayu da ngeen bàyyi seen bàyyi ya ngeen doon màggal màggal kenn ki di labbayka laahuma labbayka da ngeen wër kaaba gi doonte doj rek la da ngeen foon xajarul aswad doonte doj rek la da ngeen baagante diggante safa ak marwa doonte doj la waaye doonte doj yooyu ma wax bokkut ak yeneen doj yi da ngeen tumuraanke gi mi nan da ngeen dem arafa da ngeen ñëw musdalifa da ngeen ñëwaat mi nan da ngeen sànni da ngeen sànnee doj ci doj su ko defee ngeen ni sànni doj ci doj bi ngeen fa bàyyi ko jëm màkka def tawaaful ifaada waaye xoddu ni mu jafee moo tax léeg nga gis koo xam ne biiram ba ba mu xoddoo kenn xamut lu muy niru nga xam ne kii yonantu bi rek rek moo ko mën a sant xoddu mu xoddu waaye ku ko santoon xoddu ku dul xoddu ku dul yonantu bi dootul xoddati da nga gis koo xam ne sërëm ba dana tasee nu ne mu takk ko fu ne waaye terewut ma ngi cay jéem lim man lépp rek ngir wëyal santaane yàlla bi ca yonantu bi jottali ko ci wa ma ataakumu rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu kon benn dërëm boo ca fere yàlla fayee la ko loola ba ca tegu nag mu des waruwaay bi njariñal waruwaay ñii xaji ñetti xaaj lañ xam na ñuy war waruwaayu gaal wala oto ñu mel ni suñ mbokk égyptiens yi ca gaal ya waa Dubaay yeeg ñu jege foofa ca oto ya am ci ñoo xam ne avion lañuy jël comme sénégalais yi bu njëkk ba am na ñoo xam ne gëléem lañ daan war bu fekkee da dox ñenn ñi dox ndax seen diggante ya soriwut jéego boo jéegu benn jéegu boo jéegu ñu bindal la ko juróom-ñaar téeméer ci yool li nga jéegu juróom-ñaar téeméer ci yool waruwaay boo mën a war avion la yaa ngi war gëléem yaa ngi war gaal yaa ngi war oto benn jéego bu mu jéegu mooy fi gaal gi nekk eh, kiyam bi geenu gaal gi bu fekk see bopp gaal gi booba jéego la tànki kanam yi tànki gannaaw bu fekk see tànki kanam yi ci oto bi jéego la demeet ci avion ba noona su ko defee boobaa loola nga war lu mu jéego jéego bu nekk juróom-ñaar fukk mu mel ni kon doxa xëpp yool fuuf juróom-ñaar téeméer la war a gën a néew yool juróom-ñaar fukk la waaye nag war a gën ndax yonantu bi dafa waroon bu muy xaji moo tax ci ulamaawu usul dañuy wax ne dara dana gën dara ba pare dara jooja jaral bi ko xëpp ko yool xaj màkka dox moo xëpp yool fuuf xaj màkka nag aj màkka moo ko xëpp yool moo tax euh, loola maam xalifa ngi koy jàngale way qaayida ab usuliya ba wa man yaqul anna salaata aktharu ashiran min alqurani laa yukufaru id kasratul ujuri laa tastalsimu lil afdaliyati kama qad yu'lamu mu ne ko dara dana gën dara ba pare dara jóge yàlla bi ko xëpp ko yool salaatul fatihi noonu la mel ci leneen lu ko gën de bëri na waaye lu ko gën tamit moom fekk moo la xëpp yool su comme ni xaj màkka war ak xaj màkka dox ak xadis ba yonent bi waxoon saxaaba ya ne leen jamono ngi ñëw jëf lu baax dana jafe ba kenn ci ñooñu ku ci jëf jëf ju baax dañ ko fay payoorab ku jëf juroom fukki nit taxawayu payoorab juroom fukki nit benn sahabi yu ne ko xanaa ca ñoom juroom fukk ye ya ca ñoom mu ne ko ci yeen ñi lu ko waral yeen ngi ngeen xam ndimbal ma ngi fi alquran a ngi fi su ngeen gagee ma gaganti len ku ci xam bakkar ma ñaanal la yalla jéggal la xamuñ lu len dimbalé motax ji jamono ku baax ba def benn bu baax sa benn bu baax ba dana taxaw taxawaayu jëfi juróom fukki saxaba ñoo la gën foofu nag waaye yaa leen ëpp yool ndax benn saxaba bi gën a tuuti daraja ci waxin moo gën a foor xutbu samaan bi ëpp ju doole ci xutbu yi cheikh na tijaani laaj nañ ko ko xutbu boo xam ne yàlla may na ko lam ko may te duhut saxaba moom ak ku dul moom ak saxaba bi nga xam ne du xutbu ku ci ëpp doole cheikh na tidiane ne xutbu baa ko xëpp may way sahaba baa ko gën lutax sahaba bi gën ko mune yalla wax ci alquran ne la yastawi minkum man anfaqa min qabli lfathi wa qatala ulaika azamu darajatan min alladina anfaqu min baadu wa qatalu mune ne gi day wone ne ñi dugg ci l'islam jënd carte membre ñëk fathu di am ño hepp doole ño hepp payor ño gën ñi dugg ci l'islam gënaaw fathu kon lañ say déggee na kon ña dugg nag gannaaw gannaaw fat fu màkk kay mënu ñoo xem ak ñële moo tax kon mu ne boobu aaya moo tegte ne saxabaa yonentu bi ñoo gën ñu dut ñoom donte saxabaa yonentu ba ñaari catégorie lañ ñi tuub njëkk fat fu màkka ak ñi tuub gannaaw fat fu màkka ku mu ci ñaar ñi ñoo gën ka ñëw gannaaw ga beneen bi tamit hadis la yonentoo ko wax inna allaha fadala ashaabi yi ala jamii al xalaayiqi siwal anbiyaay wal mursalina yàlla gënal na sama saxaaba yi ci mboolee mbindeefi yàlla yi ñu dul maanaam yonantu ya rek di anbiyaawe mursalun rek saxaba yonantu yi ñoo la gën ñaari tegtal yi ñoo ko tegtalee Cheikh na Tidiane nag misaal ko nu mu gën a jegee ne mayab saxaba dafa mel ni naawu porantaan ku dul saxaba mayam mi ngi mel ni doxu melentaan melentaan nag porantaan nag mënuñoo xam dox xam nga ne lu porontaan bi naaw ci benn minute melentaan bi mën na koo dox téeméeri junne xatta du ko matal kon ni la melentaan gëna gaaw yow prentaan bi non la sahaba ba gënee yow kudul sahaba mam khalifa way ko ne inna sayrana bi nisbati li sayrihimu misla al qata wa namlati wax ju rafet loola ma nga ca jusu tulai bil murhafati al quta'i ila ibn ma'yaba akhi tanattu'i kon sahaba yango ak sen a Ki xaj maka warango ak ngëneelam ki xaj màkka dox timit ngëneelam a ngi ba taxoon ma génneel la ca lola euh, benen ngëneel gi nak yonentou bi loolu ma wax la sank adirham bi sabati miati diaf bu bay haqi mo solo hadis bi mu bokku ci hadis abi hurayra ba aba qasim nang moo wax ne man ma yonun yonentou bi ne man jaa ya umul baytal harama fa rakiba bairahu fama yarfa'u al ba'iru khuffan ولا يدع خفا إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف وطاف بين الصفا والمروة سعى بينهما ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لي يونتبي أكو أبا قاسم ما كو ديك يونتبي وخو صلى الله عليه وسلم ne ku war ak gëlem wala war bu mën don mu yëkkati tànkam teg rek yàlla bindal na la ca xiiw effacé na la ca bàkkaar dana ci yëkkati sa daraja ba ba ngay yeggee ca kaaba ga nga wër ba nga paree nga dox safa ak marwa ba ba ngay watoo ba ba ngay duufeewoo su ko defee nag bu yooyu yëpp paree nag sa bàkkaar yëpp set wecc ci yow ba mel ni keroog ba nga juddoo ni nga ñàkkee bàkkaar ibnu omar ne maa mosa toog ci yonantu bi ca masjidu munaa benn góor gu bokk ci ansaar ñëwal ko ak gëneen góor gu bokk ci ba bani saqiif ñoom ñaar ñëpp ngi ñëw nuyu ko wax ne ko yow yonantu bi dañoo ñëw ngir laaj si la yonantu bi yàlla da koo xamal baatin ni mu ko xamalee saahir ne bu leen neexee ma wax leen li ngeen bëgg a laaj bu leen neexee ma bàyyi leen ngeen laaj ko pare ma tontu leen mu wax kenn ka ne ko léegi waxal kooka nekk ne ko yow yonantu bi solo ma su ma ñëwee nii damaa ñëw di la laaj. su ma génnee sama kër jëm ci si néebu màgg bi di masjidul haram te dara taxul ma ñëw lu dul euh, euh, maanaam xaj rek ma bàyyee koo ca julli ñaar rakkaa ca maqaamu Ibrahima gannaaw tawaaf ba ma ca bàyyee koo ma dox safa ak marwa waaw ba ma ca bàyyee koo ma taxaw ngoon ca arafa ba ma ca bàyyee koo ma sànni jamra ba ma ca bàyyee koo ma loj sama hadiyu ba ma ca bàyyee koo ma def tawaaful ifaada dama lay laaj lii ma def lépp lu ma ca yàllay defal lii de laa lay laaj yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bi nga génnee ci sa néeg rek jublu néegam yàlla ba sa gëléem gi du séq benn jéego lu dul ba yàlla yëkkatil na ci daraja eh, defal la ci xasana effacel la ci say ñaaw téef ba nga jullee ci maqaamu Ibrahima ñaari rakkaa rek am nga yoolab ku goreel jaam ku bokk ci bani Ismaila ndaw ndaw ndaw yool bu rëy ba nga taxawee sa ngoon nga ca Arafa rek maanaam yàlla ma nga sippeeku yërmandeem ba ci asamaan si tiim ñu di la puukareewu ak malaakaam yi ne sama jaam yaa ngi nii ñëwal nañ ma ñu nga cugg bàyyee ko ci pépp place bu wuutee yaakaaruñ lu dul sama aljana maa ngi leen di xamal ne seen bàkkaar yi buñ bëree woon ba mel ni peppu beeñ bi wala mu bëri ba mel ni toqi taw bi wala mu bëri ba mel ni duusu géej yi man yàlla jéggal naa leen lépp kon nag yéen sama jaam yi dem leen ngeen nekk ñoo xam ne jéggal naa leen ba nga sànnee sa jamra yi benn xeer boo sànni ci jamra ya su boobaa dafay nekk kafaara ci bàkkaar bu mag ci bàkkaar yi xalake te yooyu waxoon naa ko di juróom-ñaari bàkkaar yonantu bi ne woon ijtanibu sabaal mubiqaat ashirka billahi wa sihra wa qatla nafsi haram la ila bil haqq ba hadis ba jeex juróom-ñaari bàkkaar yooya ak yu mel ni ñoom benn pep benn jamra boo sànni dana la faral benn ca bàkkaar yooya noona te jamra yi ngay sànni yépp boo ko seetee kun lay tolloog juróom-ñaar fukk boo matalee moo tax matal baax na kun baax na trop bi xam nga bisu euh, tabaski bi yaa sànni woon juróom-ñaari jamra yoo foree woon ci suufu mustalifa waaye tamit yeneen ñetti fan yaa bët bu set nga sànni ñaar fukki jamra ak benn 3 fois 21 63 da lay jox nga plus ki set ya nga njëkkoon a sànni ci bisab tabaski ba mu jox la 70 kon saa yoo matalee 70 jamra lay doon su ko defee kon nag matal moo tax baax na lool de dégg nga de. fa man taajala fii yawmayni falaa isma alayhi waaye wa man taaxara taaxur baax na de moo gën taajul de bu bu nganta amut bu nganta amee nag ay saruhuma afdalu la gën a jàppande ci yow rek moo gën ci yow su ko defee kon nag yonantu bi wax ko loola mu ne ko nag amaa nag léegi loj sa hadiyu mi kooku moom nga ne la du ma la ko wax yàlla daf la koy dencal ba yowmal qiyaam fa madkurun laka inda rabbika da la koy dëxëñal ba yowmal qiyaam mu ne ko wat sa bopp bi nag amul benn kawar booy wat ki sa bopp bi lu dul ba xasana lay doon aw xiw yàlla faral la ca ñaawteef ci bàkkaar wër gi nga wër kaaba gi ba nga koy wër maanaam fa innaka tatuufu wala zanba lakka ba ngay wër kaaba gi rek amatoo benn bàkkaam malaaka tamit day ñëw ba tëral sa pegg tëral ay ñaari loxoom ci say mbagg doo ko gis nag mu ne la jëfal maanaam ci la nekk ci sa kanam yàlla jéggal na la li paase lépp jëfal li nga dese ci sa kanam yàlla jéggal na la li paase lépp kon ajango ak yenn njariñ yi nga xamne aj lambo na ko ma waxon la ko wax la ci tay xamna du ñak ñu bari ci ñi may deglu ne ah su fekke mbind mi gu de man aji ndax ngeenel yi duma Fatma bëgg mu fatma man de su tayo gu mbind mi dana buma xeye suba dana bindu ji su ko mënul dana ñaani pass su mënul kuma yaakar dana ma dimbalé ma dem rek dana ko def dëgg la jar na ko nag waaye ah, kay xaj nag nga ne la li muy rëy ak li muy for nag warul ñëpp am na ci ñoo xam ne nii xaj warul leen wérul leen am ci ñoo xamee ne nii aj gi wér na leen waaye warul leen soo ma dégloo nag danaa la farañ fànceel ñi nga xam ne xaj warul leen wérul leen door laa farañ fànceel nga xam ne xaj na leen waaye wérul leen ki ci njëkk nga xam ne xaj waru ko wéru ko mooy ab xéeféer ku du jullit boo xajee màkka xaj ji warul la soo xajee màkka kenn du la ci bindal ab yool donte boo demee ci maraqi suud dafay wax ne xéeféer yi togg nañ leen furuux ya dégg nga de ci usul usuli yu ne loolu la ñuy jàng li leen ko togg a tax yàlla ne fa waylu li fa waylu li musrikina laa yutuuna zakata na yi xurum bugal na seen kaw ndax dañ ma joxe wut asaka mu mel ni kon bu ñu leen ca toggutoon duñ leen ko mbugal ah kay bu ñu leen ko toggee tamit nag du mën a wér bu ñu ko defee lu dul dañoo màbbu baaraasab weddi yàlla euh, fexe ba samp baaraasab wéetal yàlla nangu yonantoog yonantu yi su boobaa nag léegi baaraas boobu mooy taxaw taxawaayu pas-pas ba lu ñu mën a ñawati rek pas-pas ba man koo téye kon daal ab xéeféer aj màkka waru ko ab xéeféer aj màkka wéru ko lu ko waral aj dafa bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne dafay tënkuwu di fasuwu ci héene soo héenewut doo ko mën a def te jaamu yàlla yu bari dafay ànd ak héene tawatina jaamu yàlla ak def jaamu yàlla ak bàyyi rek moo xamut héene yére yu am sobe jarut héene demeetal yu mel noona waaye jaamu yàlla ak def faw nga héene moo tax nag ab xéeféer nag ak héene mënta wér ndax ku sa xol wérut mënoo héene héene gu wér te héene dafa baax alquran wax na ko وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة يالا نينا ديغلو مالين نيوم لودول ني جامو يالا تسلال كو اخلاص نيو اك يينه فوفا اخلاص بلا مانا خام هيني موكاي جيتو دا هيني سلال غا سلال دونا مانا نيو سوكو ديفه تيمين ناك ني ني ني تخاول دينا جوب جي جيڠ ول سودول موم waye tamit bàyyi taxawal nango taxawal julli joxe asaka lola moy diina yu jub su ko defé kon nak dañoo sartaal ci aj màkka ak jaamu yàlla yu melni ni ñoom gëm yàlla ànd ak jëf ya ca yene te lola xéfer mënu ko moo tax alquran nga wax ne man amila salihan min shaka min zakarin aw unsa wa huwa muminun falanuhiyannahu hayatan nuxiyannahu xayaatan tayiban wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yacmaluun képp ku jëf-jëf ju baax di góor wala muy jigéen tabam koy def gëm yàlla lal na ko rek man yàlla danaa ko dundal dund gu teey mooy aljanna ëllëg danaa ko fay danaa leen fay seen payoor na gën a matee kon yëgee nga ci ñaar ci ñaari aay yi aay yu njëkk gi déggee nga ci ne jëf balaa mën a wér day xam yéene xéefir mën ta yéene ñaareel bi man nga cee war ne jëf bala ko yàllaa fay muy góor muy jigéen gëm yàlla da koy lal xéefir bi ne comme gëmut yàlla moo tax xaj waru ko moo tax tamit xaj waru ko wéru ko ñettel bi yonent wax ci hadith ne innamal amalu binniyati wa innamal li kulli mri'in ma nawa jëf yëpp mi ngi lalu di lay tayelo ci héene nit ku nekk la nga héene ci sa jëf rek mom ngay mëna xam ñaarel bi timil moy xel ku amul xel di dof hajma ka waru ko hajma ka timit wérut ko kooku yonentoo ko wax sallallahu alayhi wasallam sallam ne qalamu an thalathin al majnun xata yufiq wa naim xataa yastayqasa wa sabiyu xataa xa mu ne yëkkati nañ xalim ak doxal gi ci ñett ku dof fekk ba muy xiiqee kuy nelaw fekk ba muy xeewoo ab xale fekk ba muy mësooree ñetteel bi tamit mooy mësoor koo xam ne danga ngaa mësoor a gut nekk xale wala nga nekk kuñ moom di ab jaam aj màkka warul la waaye ah wér na la soo ko defee dañu ci bindal yool ba bindalaale ca kala sa waajur ya ca yool ba waaye nag boo demee ba mësoor xaj màkk ak lislaam gi wàcce gud la war ngaa dem nga xaji sa aj gële naafila dong lañ koy jàppe bu doon tamit ab jaam ci jamono dañ koy wax yàlla dogal ba muy xaj yi goreegutoon gannaaw si ga mu goreewu su boobaa tamit xajam nga dana ca xam yool waaye xaj màkk ak lislaam nga wàcce gud ko na dem maanaam mu xaji moo tax ibnu abbas wax ne yonentu bi nee na képp koo xamee na nii dangaa yoreb xale yàlla dogal mu xaj gannaaw mu mësoor su boobaa war na mu xaj xajak mu mu war wa mu xaj ganeen xaj goo xam ne mooy tax xaj ak lislaam nga mën a ñëw ayuma sabiyin xajja suma balagal xanas fa alayhi an yaxujja xujjatan oxra wa ayuma abdin xajja summa utiqa fa alayhi an yaxujja xujjatan oxra tabaraniyu moo indi xadis boobu moo ko génnee su ko defee kon nag ñeenteel ba mooy ak ngore ku gorewut nekk dib jaam xaj warut ko waaye wér na ko moo xam jaam ba mu kaatab la moo xam xinnu la moo xam muctaq ilal ajal la yeneen ya ca xaju yooyu yëpp xaj màkka warut leen waaye wér na leen suñu ajee danañ leen ca bindal ab yool waaye buñ goree bëgg nañ ñi dem xaji xaj ak lislaam nga ndax wàccagul leen juróomeel bi nag mooy dugg waxtu xaj loo mën a mën a xaj te bëgg a xaj te waxtu wa jotagut te mooy war yi ak diggeeg tabaski ñu ne fukki fan ci tabaski ñu tabaski lépp weer yooyu lañ mën a xaj waaye weer yooyu bu ñëwagut wala bu paasee dootoo mën a xajati alxaju asurun maalumaat beneen bi ci tegu tamit nag mooy dëggal ak xattan na fekk nga man ko istitaatu nag borom xam-xam yi bëri nañ nuñ ko wuutee nuñ ko firee waaye daal istitaatu bi ci njëkk la nga xam ak wér gu mat sëkk motax bala nga dem mak rew mu ne lañu ñëk def sa santé lañuy xol seen ndax apt nga wala apt hulo ñaarel bi na nga am alal ju mat sekk ju la mën yobbu am nañu ci dawal tamit ak delu sigi dem mana a wala ñëw ba place bo xamne bo fa ñëwee du cheikh khalil waxé xam nga dundam ba waye amale nga dundal njabot bi ngay bàyyi gannaaw sa njabot gi bo lay naré bàyyi gannaaw duñ lek ba nara trox dootoo mana demati waaye bo len bàyyi woon donte la ñuy yalwaan sax di dundu te buñu ñu yalwaan lañu sarax len dara newu ci istitaatu batay mi ci yaw yow mi donte sa istitaatu gëna bi nga amé kartan da ngay yalwaan di saraxu ba hegg makka timit batay manam mustati nga attan nga batay tey la xalil wax batay manam ñettel bi moy nga am lula mana mën a yenu la ci jeri ji mba ci géej su fekke yoon wa nga ya awee ci way moy rahilatu ñu na suñu rahilal legi moy avion am ñoo xamne sen rahila gal la ñen ñi ay auto la ñen ñi sen tank la le meuna am and ak loolu timit nga holu yoon wa ci agress agression bi ba duñ nangu saxalal wala buñ nangoo saxalal timit duñ nangu saxalal nangu go xamne dafa lay yaq dafa lay fom mom la alquran ne ndax def yoy yep nga bayyi fi danse yi dem aji fek amulo santé nga dem aji amulo halal jula meuna dundal man la yobbu andi la nga dem aji yoon wi amul sécurité nga dem aji meuno dox amo war way su boobaa xaru la te alquran ne ne walaa tulqu bi aydikum ila tahlukati beneen aaya bu mu ne walaa taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahiman kon yii lañ koy tuddee nag dégg nga euh, euh, su ko defee kon yii yëpp mooy istitaatu mooy dajee ci yow nanga nga ci sa sante na nga am paas ak dewis ci mën a dem ak ñëw wala ñew fo xamne do ragal ci sanku na nga am lo dundé na nga am lo bayé sa gannaaw sa njabot luñ mëna dundé na nga am timit euh, set sécurité gu yoon wa ba do ragal sa alal ku ko nangu nangu gu lay fomm ragal sa alal kuy faat bakkan yi yep nak bu dajé ci yow istitaatu am na ci yow ji alquran bon wax né walillahi ala nasi hajjul bayti man istataa ilayhi sabilan lol moy istitaatu boko tanké noonu tamit la ko imaamu Malik maanaam waxee kon yii ma wax bu dajee ci yow rek war ngaa xaji bu yàlla dogalee daal yow mi may déglu jullit nga yow mi may déglu am nga xel yow mi may déglu mësoor nga yow mi may déglu gore nga yow mi may déglu àttan nga ci ñeent yi ma ma tënkale la ko ci sa sa sante man na ko ki sa alal matee na ko ci li ngay bàyyi gannaaw la yóbbu sécurité gi tamit làmboo na ko su ko defee tamit waruwaay ba wala dox ba man na ko yëpp bu amee istitaatu am na ci yow war nga xaji aj jàpp na la bu dajee ci yow nag ñoom ñëpp ndax nga war a dem ca saasa wala bu la neexee xaar ba ci kanam ngay door a dem kooku moo am maanaam werante fa am ñu gëm ne ñoo xam ne dañoo wax ne rek istitaatu bu xasee xam ci yow rek daal euh, ca saasa rek Gawal nga dem aji ndax man man day recce sa man manu yaram dafa la dafa la gané ci bis day ñew rek mu tagula kon na nga gaaw yow tamit makka bala la sa santé ñaarel bi am am bi pasbi, pass bi gan la gula gula bu la bu buy dem timit dula la dana dana jox nak ay signe ba nga xamé ñi ngi bëgg dem su boba timit nga gaaw tàggoo makka bala sa am am bi tàggu bu sécurité amee ca yoon wa timit tabaarakallaahu nga gaaw aji makka bala laa sécurité baa timit tàggu yooyu yëpp ci fawriyatu gi daal ci la borom xam-xam yi werante ñu jàpp ne fawriyatu gi bu xamee ca saasa rek gaawal nga gaaw aji bala laa fawriyatu gee tàggu ñooña ñaari xaaj lañ am na ñu ne daal su fekkee ne ñëw na ci yow rek ajil yaa xam bu la neexee tamit euh, nga toog ba ca kanam a kanam nga door a dem yooyu yëpp ñu ne dara néew ci ñu ko wax yëpp nag kenn ku ci nekk dafa am tegtal yoo tegtaloo te tegtal yi nga xam ne moom nga tegtaloo tamit dafa nekk di source yoo xam ne yu dëgër dëgër la moo tax boo demee ci Cheikh Khalil da ngay dégg ma ne wa fii fawriyatihi wa taraaxihi li xawti li xaw xawfil fawaati xilaafun mu ne maanaam gaawe gi gannaaw bi yëpp dajee ci yow nga gaawe dem defi ko wala nga yéex a yéex a yéex baragal ne mi ngi may bëgg a rëcc nga door di ko dem defi loola daal ñii ne dafa war ñii ne warut làmb jutta ndax kenn ku ne ci ñoom andi nga ko tegtal yu dëgër ñi wax ne dañ koo war a gaawee andi nañ ay hadis xadis ba bokkoon na ci xadis bi ibnu abbas wax yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ibnu abbas a ko déggee ci yonantu bi ne yonantu wax ne taajjalu ilal xajji fa inna ahadukum laa yadri maa yaaridu lahu imaam ahmad moo génnee xadis bi mu ne istitaatu bu amee ci yéen rek gaaw leen ngeen dem aji ndax kat kenn ci yéen xamul la koy gaar lu la mën a gaar sa yaram mën naa lu la mën a gaar ci sa am am mën naa beneen hadis bi ne wa man araada al hajja falyataajjal fa innahu qad yamradu al maridu wa tadillu rahilatu, wa ta'ridu al hajatu imam ahmad batay tey hadis ñu ak ibnu majah de nga de mu cien, ku bëgg haji ci yeen istitaatu amna mana ci yeen amna ci mom na gaaw man na febar ta lol dana ko ko xagn waru waye man na sankurir wala mu ñàkk ko ta kon dana ko ko soxla ak ay haajo man na ko teunk ba tax na dootul mën a demati loolu dana ko ko loolu dana ko xeñ su ko defee tamit kon ñaari hadis yi ñoom lañ tegtaloo waaye tamit tegtaloo nañ tamit ci alquran ci aaya bi alquran wax ne walillahi ala nnaasi hajjul bayti man istataa man istataa ñu la wax istitaatu am kon ñu demal mu jeex dégg nga dégg dégg nga loolu lañ wax waaye ñi wax ne nag su istitaatu amee ci yow man ngaa xaar bam neex laf nga dem bala nga ko ñak sa yu la neexé rek ñoo nga timi xam nañ tegtal dañ né aaj ñu ko faratal ci yonantu be xétam wi juroom benni at ci gaday gi ñi ne at te xolal fiñ ko faratalé juroomi at mbaa juroom benni at te yonantu baa ngi ga yonantu ba ngi aji ci juroom ñenti xatam xam nga yonantu manon nako ci santé man nako timit ci moyen ci matière waye tok na ba juroom ñenti at ya muy dor di dem su ko defee kon nak moo tax ma ne làmb jutta la ñii dañoo indi addilatu sunnati al qawliyati ñii indi al addilatu al fi'liya bi sunnati ñii dañoo indi tegtalu wax ndax xadiis yi ma wax la qawliya la waaye tamit lee ma wax la fi'liya la mooy li doon bi pratiqué moom bañ farataalee ci moom donte man na toog na ba juróom-ñeenteel ba mu door di dem nga xam ne fi mu ajeeg bi mu ñibbisee fi mu génnee àdduna lu néew néew la ñenn nga ne déeréet yéexe gi rek la ñaari hadis yi di tegtale man araada man araadal xajja fal yataajjal amar gi duwul amari wu jóob istihbaab la maanaam sopp nañ ko rek sopp nañ ka gaawee ko foofu la gi dañ koo sopp rek la wax tamit taxajjaloo ilal xajji amar jooju amaru cofeel la waaye duhut amari war su boobaa nag boo ko jàppee noona ba tey kon duhut lu war rek gaawee gi ñaareel bi tamit ñu ne wax ji jenn rek la mooy xat miñ farataal aj ci yonent bi dañ cee wuutee ulamaa wu siira dañ cee wuutee am na ñu wax ne juróomi at ñi ne juróom benn am na ñu ne juróom-ñetti at la juróom-ñetti at ca gàddaay ga la su fekkee juróom-ñetti at ca gàddaay ga la yonent bi yéexewut ko di dañ koo farataal dañ ca déwén ca mu dem su boobaa kon nag wax jooju moom nga koy mën a dëppalee ba xam ne du tanaaqud ci sharia waaye wuutee déggin la yoo xam ne boo ko màccee nga ràccaat ko mën nga leen a boole muy benn déggin moo tax kon fawriyatu gi ak taraaqi gi noonu la ci borom xam-xam yi wax ci wàllu maanaam aj gi kon nag wax naa la aj ak ñi mu war te wér leen wax naa la ajak ak ñi mu ñi mu mu ñi mu wér te fekk maanaam tamit wërul leen su ko defee nag xam naa ne euh, lama lay tënkal rek nag mottale ko waxtaan wi mooy yow mi aji dafa aajoo bala ngaa dem nga wut yóbbal Yobel bala nga dem yobel bi gën nga tagat yobbalu bakkan bo ca ko nga am yobbalu xol bo ca ko nga am yobbalu xam-xam bo ca ko nga am yobbalu alal yi dafa wara am yoy wara mana yobbalo ndax sa gi yomb war nga yobbalo sa bi yaangi aji tagatal sa bakkan bi ba bul halé alal ju bon bul jël halal ju haram nga di hajé bul nangu timit nit ki tapalé wala mu sàcc wala mu jëlé halal ci lu haram dila ci ajalé nga nga xam ko tay dem soko xamut nak nga dem aji sa dara nekut ci yow mu xam ko ci yool rek momu gaddu bakkar ba kon nanga xex ak sa bakkan ba alal ji nga yobbu makka na lew waye bul aji makka timit di la ko ci halal ju lew ba pare bayyi fi sa gannaaw lëndëm yaa ngi fi bayyi ay dénkaane yu ñu tegoon ci sa sa ndodd yaa fi bayyi woon ay bor yoo war a fay yaa ngi fi bayyi woon ay xaq yoo waroon a kon bala ngaa dem tàggooxal ñoo ameloon àq nga baawlu leen àq ñi nga xam ne da nga leen ameloon alal ci bor nga fay leen say ndénkaane nga delloo ko yaa ngi dem xamoo da nga ñëwam déet lii lépp nag nga tàggatee ko sa bakkan bi waaye nga tàggat sa bakkan bi timit ci mën muñ ci xenu lor te muñ ba do lor kenn nga yëg ni aduna dong lay dajeek am na ñoo ma nga maa ñom bokku ñu waso bokku ñu raso ñi déggante wuñ ci lang ñi bokku maak ñom ay couleur suñ xol yi dong ñoy communiquer nga fexé ba sa xol sa sa roxu gi di communiquer ak ñom ba luñ la tek ci lor nga muñ ko ta nga ba bul lor kenn waye dama doon wër kaaba ge ba ma naar ba conco ba ma ko kurfañee loola baaxut foofa benn kurfañ junnee kurfañ lay remplacer ci yeneeni place ndax kat fu yalla hormal bo fa moye yalla genn moy yalla ga dañ koy ful bakar yu bari bari ma wax junne rek way na ma sax junne su ko defé kon nak yooyu dafa jara daw lol nak bakkan bu tagatu mo ca mën dem nga tagat sa rooxu gi mu andak sa xelmi nga setal ko ci ci ko yu bon yi setal ko ci yi setal ko ci ah, topanga yi setal ko ci haqi setal ko ci li nga minon fi ci senegal xam jot lool ta mën a wax lool xam nga dafa jara ñaar dañoo ragal ki xam jot ta mën a wax xëy rek toog bañ tegee boolu añ ba jigéen ñaa ngi ko tiim commencé tiim añ bay tibbu di lekk boole ko di jëw bañ ca bàyyee ko lekk nañ ba pare war a sen yu seen dessert ba mooy jëw ñi reerati noona nekk ci gara placé ca bàyyi buntu kër ya ñi nekk ca ron pegg jumaa ya, ñi nekk ca ron garabu akasia ya yàq dera doomu aadama yi rek ak wax seen sikk te ña koy wax ñoo gën a sikk ñëpp te ñaari bët lañ am te yëguñ ne nit ñi ñi ngi amee ay bët su ko defee yooyu yëpp bu ci sa roxo gi sellut tabaarakallaahu sa xel mi sellut ci nga bëgg a jël takk booba dugalaale ko yóbbuwaale ko màkka danga tilimal màkka te màkka da ko salteel te màkka saltewul fexeel ba booy takk sa bagage yi bu ci takkaalee yooya nga am tamit discipline gu mat sëkk fuñ ne ran leen nga bul yàkkamti ci ascenseur ya ca kaaba ga ci muna ci arafa baña nek nekk buux buuxloo bañ a nekk xuloo bañ a nekk saagaxante waxante wax yu bon nan ko mine won ci senegal ci njar car rapide ya, njaga njaaya ya, ci tataaya yemale ko fi waye lol bu ko takkaale mu bokku sa yobbal bi nga wara yobbu makka màkka yeb nga fexé bum dem makka kon lola ay yobbal la waye nga fexé ba yobbalo xam-xam yow mi bëgg di ma dégg mboolem ci langue yi ñi langue ci réew mi bind nañ ci ay livre yuy jàngale ni ñuy xajee nga dem ci benn borom xam-xam iliman ja yow mi may déglu bul gàttañ lu de demal ci iliman ju la jege borom xam-xam boo naw ne ko dama war a ren dama bëgg nga jàngal mi ne ko suñ mbokk di defee ki war a aji déwén ren lañ leen di tàggat defal leen lu mel ni kaaba tàggat leen ci atu lëmm ñi di ko pratiquer ba man ko mokkal ko door a xaji déwén waye ñun da ngay tok ñu la kay nga dem haji sa dom dila yobbu wala sa baay di yobbu wala nangam ak nangam te yow ma sax mëna gol la bay ka xam nga lolu musiba la demal nga jangi ko rek ñako man ñep dañ ko jangi nga dem mu bind la nu ñuy la bay ka woo wax la nu ñuy sango sangum harmal mok sangum janaba sore wuñu nga wax la timit bo paré bo julli ñaar rakkay armal bi fatiha qul al kafirun bi fatiha ikhlas dina ci ñew nga tabal ki sa xol ban aj nga bëgg aj aj ñetti façon la comme manam tamatoox laay defam xiraanam ifraat yëpp danaa ci ñëw benn bu ne nga bàyyi ci xel ban laay aj su ma demee nag ba yegg kaaba ga fu ñu war a tàmbalee wër gi waaye ñëw ñëpp yi wër rek commencé wër xam nga fu ñu war a tàmbalee sa da nga wër ba dee tab bi doo benn wër dafa am commencement comme ni julli amee kabaaru xarmal julli nga commencé ca am na benn lampe bu verte ñu rëdd benn rëdd ci suuf foofa booy tàmbali foofu ngay tàmbali soo demee ba yegg si waat foofa am nga benn nga yegg si waat fa am ñaar yegg si waat fa am ñett ba muy juróom fekk yaa ngi wan kaaba gi càmmooñ nga koy wëree xol càmmooñ la xëppee loolu lépp nga xam ko bu ñuy dox safa ak marwa fu ñuy tàmbalee am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne aller retour mooy benn yoon fekk aller bi rek yoonu boppam la retour bi yoonu boppam la ba mu mat juróom-ñaari yoon taxawaay ya nekk ñeenti yoon nga xam ko xam gu wér a wér a wér bala nga caa dugg ca wàll woowa su ko defee yooyu dafa nekk lu ñu war a xam bu baax a baax a baax nu ñuy sànnee jamra nu ñuy defee yeneen ya des nga dem ci ko ku la koy jàngal nga enregistré ko sa portable bi wala nga bind ko téye ko nii xool ko la nga xam nag soo ko boole ñi lay gidee nekk maanaam ñi lay encadré soo leen boole rek da nga mën a dimbale waaye dem di aji ta xamoo dara dara dara ci aj ñëpp ngay def maa ngi def rek xàmmee ponk ya xàmmee ho waajibaat ya xàmmee sunan ya su boobaa timit dëgg-dëgg ku xamul tey def ñaara koy xaar dugal ci lu ca bokkut mbaa ci lu ca te loolu lépp dafa yàq sa aj gi te nag sonn jël xaalis bu bëri dem yóbbu ko war aji def weer ci àll bi bu nga dëggale la taxoon a jug war ngaa fexe ba nga mën koo am te loolu nem na yaa koy may sa bopp rek ci ni ngay toxalee ak ci ni ngay doxalee kon yóbbulu xam-xam mënta ñàkk yóbbulu kartan boo ko mënee di aji dal. def ko ci sa digg kartan wala nga am kartan koo xam ne do doo gaaw a sonn te yu ci bëree bëri da nga ko mën a taxawee waaye tamit yóbbul yóbbul bu doy eh, nga am xaalis ami réal yu doye doye doy takk ko bu baax nak ya yow mi may deglu mang lay xamal ni nar yi ñu tabarakallahu fi ngay héem ñi agressé di héem sàcc yi boo demee foofa yi ño dak dak ño dak sàcc suñ sàcc suñ ñi dak sàcc suñ sàcc fofa lenn ca yi ño len dak sàcc so amul sens ñawlul fi ben camera gu dëgër nga dugal ci sa xaliss bi takk ko ci sa ndigeli direct do la jël do la jël armal gi ngay waddoo takk ko ci kawam su boba yalla man la dimbalé ta khalis bi nga xam ko boy dem di wéccé ko andal ko ragal yalla loy jënd mëna a la la waye bo fa dañé ya ngay jënd amna lo xamné ne sax témir lay jar nga joxé kayit gu maggi mu nekk ti ñaari jundé ñi nax la ca sa khalis day gawa jeex te ñu ci timit nan naan ma kala lañ dagal nañ yalla ñok ñu nayam ñu ci bari timit ñun sax ñoon ci bari ñoo leen téné ndax la waja waxon makka lañ ñu roylo roylo hu ñu wa makka bari na ñu nekk makka ñoo xam nga nekk ñoo leen gën téméri junne yoon moo tax boo fi nekk naan màkka laay roy lu màkka def ma def ko ñun royloo fu ñu waa màkka màkka dong lañ ñu royloo ca julli ca Kaaba ga di julli di ko jublu ak yeneen ya ca xaju waaye royloo fu ñu waa màkka tax la waaja ne woon ku roy ci màkka ñu roy ci maska alim la woon xamoon na tomba ak maska ku fi dem roy ci waa màkka ñun ñu roy ci Serigne Touba roy ci Maam Alaaji Abdoulaye Niass roy ci Maam Alaaji Malick ci maam maska mi Aliou Sakho ne woon ci màkka ñu roy ci maska alim la woon xamoon na tomba ak maska kon foofa sàcc bari nañ fa takal sa nafa gi ba mu ñawlu walé ko ci perkaal bu dëgër defal ko firmitir tak ko ci sa ndigili jeur armal ga tak ko ci sa kaw andal ak ñaga bok ak neeg ñi nekk ñu ragal yalla soy dem di ku ji wala ngay dem di jëndi nga and ak ñom ba kenn du la nax waaye bo démé yow sa bop na nangam nga génné xalimu la déret bi la nga génné bi mu la bi la mi ngi melni kuy jënd témir nga dem nga génné kayitu ñaari junni mu la bi la nga ñak sa xaaliss sa xaaliss gaaw jeex ta gaay dañuy wax ne ku say réal jeex say ree jeex kon boo bañee sa ree ya jeex nag bu sa réal ya gaaw jeex te palaatu añ yaag yu reer yaag ndékki la seer na fa lool bu sa xaaliss gaawee jeex rek da nga am problème yooya yëpp nga yóbbaloo ko ci xam-xam xam-xam bokk na ci xam xaalis bi xam-xam bokk na ci xam li ngay def ak nuñ koy defee fuñ koy defee waaye tamit euh, xam-xam bokk na ci na ngay na nga mën def ba denc sa xaalis ci mus ko xamne ne kenn du la nax baxna ci la ci yokku timit mang lay ñaan yow mi dem makka surtout fi ñu gën a gaaw a yi toilette yi muy duus yi bokkaate la nga ne ya ngay dugg biir ho sa bop rek tekki sa kabra aj ko ca kaw wala nga aj tekki sa sa sa armal tek ko ca nga fàtte ko rek genn ka ci dugga rek jël xaalis ba loolu ñu bëri nañ ci motax dal takkal sa xaalis bu deugere deugere bu mukk benn jamono bul teqali ko moom waaye boo tekkee teg ko ci toilette bi rek bu keneen duggee rek sàcc xaalis ba nga ñàkk ko am na fi ñoo xam ne tey ni nit ñi daggee billet di aji ne lay amee ñuy dagg billet pour sàcc ji fu ñuy defee lu baax ñuy def lu bon ña ngi ca pegg ba kon nga bàyyi leen xel bu baax booy dugg ci toilette bi takkal mu dëgër sa valise boobu nga dugal sa néeg koo mën a bokkaa technique yaa xam jëlal sa xomb nga tëj ko jël xomb booba jël caabi ya boole ko ci fi ngay denc sa xaalis boo tijjee rek tejat dencat, sa bagage yi nek lu dëgër a fo denc ko denc bu baakha baakha baakha a baax a baax ba jënd sérité timit nona ngay nga jënd li lu xem rek lu ñuy jaay fi yépp mi ngi fi sérité mak doyna manam, ben ben ben kurus koko ko jox wala nga jox ko tandarma wala nga jox ko tandarma mba nga jox ko sam-sam ben bi boko ci jox doyna lo waxati rek ben rek ka fa dëkk la la bëgg wax sax moy sam-sam kese lo waxati dañ ko fa yobbu way dëkkut fa tàndarma ñaata réew lañ koy bayé du jeex euh, buy krus, ñaata lañ ci am sénégal yi kurus yi dafa am makka su ko défé kon nak jëratul ngay jënd kurus yu dul jeexaka ku ne mako bëgg jëndal copati ki dama ko bëgg jëndal manam kala ki dama ko jëndal nangam sa bëlis ba dana fess bañu mayé bañ passé le ëpp loola demal nga jënd sam-sam rek def ko ci euh bo ñëwé fi rek def ndox tuuti panam ndox soti ci sam-sam ñëpp naan barkelu ndax loola yonumtu nee na zam-zam li ma suri ba la waaye soo bëggee ku la jox ñaar téeméer nga ndil ko mbaxanaa ku la jox junne nga ndil ko kaala kurus su ko defee yooyu tamit baaxul te ñu ci bëri dañuy def loola wala tam nun tas fiir joxe lii ngir bëgg ñu jox la lu gën a bëri yàlla tere woon na ko yonantu bi mu nekk def ko muy lu xaraam ci moom mu tere ñu ko ñun ñi tamit ñu war koo teet war koo moytu ku la tàggu màkk loo koy jox na yàlla tax kese mu sankal la ko ca lamuy def nga xam ca yool te yaa tok fi fii bul sentu lum la war defal yow timit buñ la jox timit nga bindab liste fu nek nga ñew def nganale yu dul jeex génnee sa xaalis boo moytuwul sa nganale nga ñëw di netali. di titaru ba sa xaj ga far yaqku loola dara jëru ko kon na nga simple lépp bàyyeekoo fii bar jot nga waxu jëm ca jakka ja la ngay def mo bang doole fuf nga tak naan ba nga jëm avion dem makka kon dem jakka ja xam na ñew di netali. dem makka dem jakka ja xamul netali. kon nag jooxe julli moo gën a foor jooxe ji xaj ba imaamu Malik na boo naree xaji sax waxtu julli faat la ca yoon wa xaj wàcc na la Malik sax loolu la gëm su ko defee kon nag euh, nañ delloo xel yi bu baax a baax a baax fogoru bu baax a baax a baax a baax di gën a nag bàyyi xel sàcc yi bu baax a baax a baax a baax fexe yóbbalu ci jikko yóbbalu ci xam-xam yóbbalu ci kartan yóbbalu tabaarakalaaw tamit ci comportement yu bëree bëri yi kon niñ comporté woo fii fu Sénégalais dem foo dem xeeb leen moo tax waa ji ne moom ah aljana kay moom euh, boo fa demee bu nga bëgg a laaj fi Sénégal yéen seetal fa coow la gën a bari rek ku ba gën a bëri coow rek jërul laajte fa la maanaam maanaam fa la Sénégal yee de ma man nag ma ma jàngatee ci ne man de damay ragal euh, Sénégal yi niñ bëggee euh, wax ju bëri ak niñ bëggee coow damay ragal ëllëg yàlla dugal ñu aljana bañ dugg ba pare ñu nekk fa di coow a coow a coow ba yàlla ne. ñooñ di coow ñi ki déranger waa aljana yi génnee leen leen ndax comme moo waxoon laa moo yasmauna fiihaa laghwan wala kizaaban damay bañ ñaar yooyu ñu def ko fa defa def ba yàlla ne nañu far génne te boo ko ñaam problème kon nag euh, comportement yu bëri fii boo ko melokaanoo rek boo demee ci yeneen réew wala ci yeneen xeeti aw nit da nga xeeb sa bopp yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel yàlla na yàlla dimbale leen te dimbale ñu taxawu leen taxawuñu barkeel leen barkeel ñu lépp luñ leen yéene ci seen liggéeyam aj gu màgg gii yéene ko suñ bop yalla nañ ko yalla defal ta defal len ko yeen ñepp timit yalla bu len reer yalla bu len reer le seeni farata yi len tax a na mat mat ko kawé seen njortu lepp nako yalla bëgge ngeen defé ko ko ba ñepp ñu ca dem am hajjan mabrur gi nga xamé laysa lahu jasa ila al janna wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alamin wa sallallahu wa